え toujours dans votre acte du jour de ce 10 octobre 2024 ginnaaw bi nga xamante Bougan Bougane Gueye Dany dafa jam baaraamu tuuma ci ki nga xamante ni mooy leader bu parti Pastef ci li nga invalidé di candidature u Barthélémy Diaz moo waral kii nga coalition boobu di ànd liggéey daal di dugal recours ci kaw Barthélémy Diaz moom su ñemee woon moo koy defal boppam mais dafa làqatu ci coalition pour def ko ginnaaw loolu nag am nay mi di leader bu parti Pastef bi ñuy joxoñ baaraamu tuuma que moom moo bëgg invalider candidature Barthélémy Dias dafa am ay kàddu yoo xamante ne daf koy yëkkati woon ci élection législative yi ñu génnoon bii passé jëmale ko ci 2022 ak li nga xamante ne mooy élection municipale yi ginnaaw bi nga xamante ni ñoom ak Barthélémy Dias ñoo bokkoon li nga xamante ni daal maanaam coalition Yewwi Askan Wi nañu déglu ji leaderu Pastef dellu la justice sénégalaise ma leen di wax nag cette justice là Barthélémy Dias sera le candidat de Yewwi Askan Wi bu soobee yàlla kenn mënu koo tere nekk candidat et nous gagnerons Dakar incha kenn mënu koo tere gannaaw yàlla lii ñuy def nii dafa ñaaw ci Sénégal dix ans nga yor dossier di lambar lambari dix ans dix ans nga yor ko dossier di lambar lambari ba nit déposé la lendemain nga naan da nga koy convoqué moi si j'étais Barthélemy du ma uyu élection dañu war a bàyyi ñi war a compétir compétir le peuple tànn fenn foo xañ ci loo xam ne tegul ci yoon nga xañ xañe fa ab liste élection fofu amu fa da nga créer les conditions d'une victoire sans adversité té nak fu ko def dinañ jël tout suñuy matuwaay yépp pour fofu élection bu mu fa am lépp dinañ ko assurer. bon je grâce à Dieu parce que Ousmane Sonko il a. yégal sénégalais yépp nak di araftu ne leen Macky Sall mi ngi ci tànku bëgg nangu ay mandat Barthélémy Diaz te xam ngeen ni duñ ko nangu. Je Tankou, en train ak instrumentaliser toujours la justice bëgg que nangu mandat Barthélémy Diaz en tant que maire de Dakar et en tant que député à l'Assemblée nationale xam nga askan mo moo ba ne Barthélémy doy ma ñu assassin la mu ne la pour ma ñu dellu si waat mbër mbër mbër doy na moom moo ñu doy pour ñu mu mu ñu jox ko député Ndakaaru mu demal ñu assemblée nationale kooku kenn warul am sañ-sañu ñëw tey ne dama koy nangu loolu ci violence yi nga xam ne Macky Sall mi ngi koy exercer mu ngi koy waajal nag ñu teel a araftu kon ñoko ko muy kàddu yo xamantene mi ngi roté ci lamiñu ki nga xamantene moy leader leaderu parti Pastef de l'actuel premier ministre di tête de liste li nga xamantene moy liste Pastef ci élection euh, législative anticipée du 17 novembre kaddu yi nak la yëkëti won ñaari at ci ginnaaw xam la ni ka dal accusé na ki di Macky Sall mi ngi ci pour nangu mandat Barthélémy Diaz benen bi la justice sénégalaise la waxal kan moy justice sénégalaise moy conseil constitutionnel nous sétane manière, benn yoon ñuy invalider ki nga xamante ni mooy candidature Barthélémy parce que il est éligible il est électeur kon donc yakarna ni comme moo nekkoon démb li nga xamante moy avocat Barthélémy Diaz jamono joju mi ngi nekkoon opposition tay nak moy jëwriñu gouvernement bi ñom ñoo régime bi je crois que dina delu wat ci kàddoom yoy ba nga xamante justice bi dinañu valider li nga xamante moy mooy candidature Barthélémy Diaz bi nga xamante dañ ko bëgg jaay doole ndax té dee condamnation la ret mom mi ci bopam amna condamnation ndax té tej nañ ko fi 6 mois de prison jëmele ko dal ci diffamation contre Mame Niang jëmele na ko condamnation 2 ans de prison di contumace comme digënté mak ak Adji Sarr te loolu yaakaar naa ni nga xamanteni moy loi d'amnistie bi yobou ko ndax té lolu luñu jugé la ba loi d'amnistie bi mi ngi yobou fait yi nga xamanteni ken juger jugé won ko ko ci vol de portable bi nga xamanteni mo taxone ñu arrêté ko ak yenen délit yo xamanteni Japon nañ ko ci ay nit yo xamanteni dañu participer won ci ay manifestations donc je crois que lolu aussi il est valable pour mon en tout cas kaddu yi dal la won dembu bu mu nekkee défenseur u kii di Barthélémy Diaz nekk avocat su justice rek mo taxone muy wax dembu est-ce que tay du delluwaat xoolaat yi dal que kat justice rek en tout cas VAR mo tax tay ñi li mi di leaderu parti Pastef mo yëkëti won yi biñu il invalider candidature en 2022 ci élection législative ak élection municipale yi sax ba nga bu condamnation définitive ci di dafa Macky Sall dafa nekk ci nangu ay mandat comme ko donc ce qui veut dire que Barthélémy toujours mi ngi ci ay droit en tout cas yéenay jugeel sen bop ndax affaire bi dafa rax politique politicienne wala dafa rax naxate wala dafa rax injustice en tout cas lepp lu meuna am dal li di conseil constitutionnel jëloogul ben décision validée wala invalidée ben recours bo xamanteni ni déposé nañ ko moy bi nga xamanteni takku walu dugal nañ ko mom mi ci bopam di leaderu Pastef jëmele ko jiite liste li nga xamanteni moy Pastef ak ki nga xamanteni moy and liguey dugal nañ ko jëmele ko dal ci candidature ki nga xamanteni dal moy Barthélémy Diaz